c'est ça mais sama question mooy. oui euh, est-ce que da ngay positionné wu pour euh, yeggali yéene Macky Sall c'est-à-dire jël légam ou est-ce que euh, da ngay positionné wu pour conduire les destinées de la famille. ah non quel que soit le successeur de Macky Sall il devra s'appuyer sur son bilan qui est magnifique mais mieux encore Macky Sall sera aujourd'hui plus utile au Sénégal et à l'Afrique qu'il ne l'aura été pendant ces douze ans. Aujourd'hui, toutes les portes lui sont ouvertes. Il prend son téléphone, il appelle Joe Biden. Toutes les grandes universités du monde s'intéressent à lui. waaw euh, ma ma wax ko ci wolof dama ne képp ku yàlla dogal nga wuutu Macky Sall dangaa war a sukkandiku ci limu mu liggéey d'abord bilan bi baax na ensuite nga tàllal ko sa nopp liggéey ak moom ndax fii mu tege tey ci décision bii mu jël àddina bi wekk nañ ko wekk goo xam ni tey lay gën a ëpp njariñ pour Sénégal ak Afrique que bi mu nekkee président du Sénégal tey bu yëkkatee téléphone am bu 2 euh, avril jotee ba mu bàyyi laa wax de ba nga xam ni nekkatul président génn bi rafet na rafetaay boo xam ni parcours bi mu def expérience bi mu ci am nekk maire de Fatick nekk ministre nekk premier ministre nekk président assemblée nationale nekk président de la république nekk président de l'union africaine ba noppi génn génn bu rafet bi dana ko may maqaama boo xam ni ci àddina bi ku mu yëkkati téléphone woo la moom ngay njëkk a jël que président yi toog donc ku am xel te bëgg a jiite Sénégal ëllëg def ko xarit man de sama rakk la moom <laughs> leer laa <laughs> mais <laughs> <laughs> c'est ça gaañu gaañu bu ndaw ak engin yi rek. Ah, ak xam nga rek manipulation waaw maa ngi waajal nawet ah, bi. Ah. <laughs> absolument en merci beaucoup. merci beaucoup euh, Maïmouna merci beaucoup. dalal bi ak euh, allah euh. dégg naa la keroog nga ne yaa ngi may baab mais jaru ko MNF c'est un plateau apprécié. merci allah je viendrai vous rendre. visite merci beaucoup euh, Maïmouna merci beaucoup